Euh, man bëgguma woon dugg ci eh, parti politique bi ci en tout cas ci débat politique boobu mais euh, mais mais mais puisque yaa ko indi <laughs> hmm. je pensais que vous en aviez fini euh, avec la politique mais puisque yow yaa ko indi alors non fini pas du tout <laughs> man ma <laughs> jeexal ak politique ma jeexal ak adhésion dans des partis politiques militantisme politique. c'est ça mais jeexaloo ak ak politique. alors euh, bi nga phase bi nga rappelé léegi concernant ton retour au PDS euh, divergence yi ak euh, Idrissa Seck parce que je me rappelle am na loo xam am na loo xam du ma ko fàtte mukk bi ñu bi Idrissa Seck nekkee ci phase décadente yéen ci ngeen jóg. porte le combat contre lui et yow bokkoon nga ci ñuy gënoon virulent doon expliquer je me rappelle lors d'un entretien avec nga doon ko expliquer euh, les pratiques les méthodes de Idrissa sec donc yéen cadre yooyu euh, combattre ngeen Idrissa sec jusqu'à son départ alors est-ce que avec le temps euh, ces ces ces ces divergences se sont se sont révolues se sont résolues wala est-ce que ba tey yéen a ngi garder une certaine distance. xam nga may mën a man je suis un homme très. Euh, posé en termes de valeur du ma bouger man musuma combattre Idrissa Seck. ah mosoo combattre Idrissa Seck pas du tout. Idrissa Seck en réalité moom moo amoon choix wu euh, ñi nga xam ne peut-être c'était des fortes têtes au sein du parti démocratique sénégalais musul euh, composé ak ñoom c'est vrai boo fàttaleku bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo ko soutenir pour mu nekk premier ministre. boo seetloo bi mu ses premier moments yu mu nekk primature euh, soutien bi ma ko amaloon bi ma nekkee assemblée nationale ñu bëri dañoo utiliser loolu en réalité auprès du président lay Wade surtout ñi nga xam ne euh, peut-être c'est un débat euh, politicien boo xam ne jaru ko ba bi muy am jafe-jafe ak président Abdoulaye Wade ba ba ñuy voter li nga xam ne mooy mise en accusation Euh, ñi nekkoon ak euh, président Abdoulaye Wade surtout dans le cabinet très proche de Karim Wade ils étaient toujours dañu considéré ne man ci nitu Idrissa Seck yi nga xam ne à abattre laa bokkoon ba am na jour boobu maa ngi fàttaliku dama jógee assemblée dem présidence kenn ci ñoom euh, ne ma ah maintenant vous êtes des nôtres loolu la ma ko waxee ah maintenant vous êtes des nôtres li ma ko tontu rus naa ko wax ci télé mais dinaa ko bind ci livre ndax kooku ku ko liir rek yaa yaa ko liiral sa bopp kon Idrissa euh, ni mu mel la mel euh, dana la defal benn anecdote euh, parce que c'est l'histoire pour nga xam lan mooy dëgg réellement jour bi mu amee audience ak président Wade te fekk sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin dox lu mel noonu merci kan moo nekkoon foofu cabinet politique du man Habib Sy nekk foofu directeur de cabinet bokkul ak 2007 c'est il y a une autre audience mooy audience bi nga xam ne dafa àndoon ak délégation ñëw wuy si président jàppoon ne rencontre lay doon entre président lay wadd ak délégation bi mu ñëwee ci biir salle bi fekk ñu toog man Habib Sy Habib Sy directeur de cabinet man directeur de cabinet politique eh, dafa wax président ne ko waaw mais man de dama sama délégation ñu ngi may eh, ñu ngi fay ci salle d'attente bi Abdoulaye ne ko non man yow lay recevoir mu ne ko mais ñii lu ñuy def fii mu ne ko ni nga fi nekkee woon comme directeur de cabinet su may recevoir nit nga teew ñooñu nii tey ñoom ñoo fi nekk. am na lu mu ko fa wax pour nga comprendre en réalité que man musuma xeexee di peut-être que j'étais pas dans ce schéma euh, te il l'a avoué après par la suite dafa wax ne euh, président daf ko wax ne ko Idrissa euh, ji nga réaction bi nga am nii par rapport ak sa frère yi depuis nga commencé. ak man am problème loolu nga doxal yaa a beaucoup de cadres du PDS ñoo xam ne dañ ma jege lool jàppale ma am nga ak ñoom divergence mais yow laa faraloon boo leen seetloo ñoom ñëpp dama leen presque génne mu koy siteel ay Aminata Tall ñu bëree bëree bëri mais bi nga xamee ne situation bi euh, sama diggante ak yow am na crise ñoom ñëpp je les fait revenir ñooñu bu fekkoon ne muñal nga leen walla amoon nga souplesse vis-à-vis de konoon du ma la du ma mos am ak problème parce que ñoom ñooy parti bi mais tey ñoom ñoom fii lañ sama sama côté lañ nekkee donc pour te raconter cette anecdote c'est pour expliquer le ne le en réalité euh, je pense que c'est Idrissa Seck qui n'a pas su gérer ressources humaines yi nga xam ne ñoo nekkoon au auprès du président euh, peut-être que aussi c'est normal hein euh, bu fekkee da nga yaakaar ne da nga am une ambition Euh, personnel war nga utiliser loolu écarte ñi nga war a écarter boo ko mënee politiciens yi dañu mën loolu xeex fii ay nit fi a gauche à droite mais tey je pense que bu doon euh, bu doon tey démb bu doon tey du ko def parce que sentir naa ci moom benn mutation boo xam ne c'est très très positif. alors Idrissa euh, Seck donc nga jàpp ne quel que soit par ailleurs nos divergences personnelles mu du impacter mes choix mes choix sont libéral social. je ne peux mënuma ànd ak ku dul libéral